gouvernement bu yeesa maanaam gisaguñ dara loole moo tax journal bi nee na réew mi dafa taxaw réew mii di Sénégal jamono ji maanaam taxaw na lool te nag bëri na ay ministre yoo xam ne maanaam nag ñoo nga joyeli ca maa mën yë sa sëriñu tariyax ya ngir nag mën a dugg ci gouvernement bu yees bi ci biir ministres yi ñenn su ñoom dañoo njortu ne maanaam sëriñu tariyax yi moo leen ci mën a génne ñu dem nag def ay dëbbal dëmbal daa di sangu diw takku ngir nag dugg ci gouvernement bi yéen kaay gi di réew ko di nee na nag bu dee ki nga xam ne maanaam moo war a taxawal gouvernement bi boobee di nday mbilli gi di Macky Sall moom ci ay jayeex-jayeex ci la nekk yéen a kaay gi de las nee na nag gouvernement bu yees bii nga xam ne Macky Sall war na ko tax taxawala maanaam il faut nag mu nekk gouvernement de combat ñoo xamante ni dal maanaam du ñu yàccaaral yéen a kaay gi la vrai journal la nee na xaw ma gouvernement bu yees xaw ma gouvernement bu màggata waaye li am ba des daal mooy askan wi nga xam na ñooy yeewoo Sénégal ñenn ñi sonn nañ ba maara de tale maanaam xëy ci réew mii di Sénégal ndekki añ reer na ñoo xam ne mënatuñu ko xëy ndekki ba naayis añ ba naayis reer ba naayis loolee bëri na ñoo xamante ni mënatuñu ko te nag li nga xam ne moo gën a doy waare gën a ñaaw ci mbir mi mooy Macky Sall mi nga xam ne nag moo seetaan commerçant yi maanaam seetaan leen ak askan wi commerçant yi di yokk lu leen neex jamono jii sax location bi kenn mënu ko lala moo xam studio la moo xam appartement la yéen kaay gi ne na bu passé nag dund gi fer bi cher na ba maara de tale mën na lay yokk ci ciment bi yéen kaay gi nag nee li nga xam ne nag mooy njëgu yokk yi jamono ji amul kenn koo xam ne tal na askan wi ci biir gouvernement bu makki Sall bi ndax nag li nga xam ne moo ko waral jamono ji ñoom ci ay calcul politique moom la ñu toll te ñoom loole la ñu tala yéene kaay gi di exclusif nee na Ousmane Sonko andi na nag tiitaange ci njobbaxtalu nguur gi maanaam panique bi nga xam ne moo am au sommet de l'état loolee moo day wara journal bii di exclusif nee na nag ginnaaw élection locale yi nga xam ne coalition Yewwi dafa jàpp benn bokk yaakaar daal di koy faj ñu ne déet waaye yeeweeg wàllu jàpp benn bokk yaakaar ci élection législative yi ba nga xam ne Macky Sall jamono ji tiit na ba maara de tale ngir nag ñàkk majorité ci assemblée nationale waa benn ñoom daal jamono ji benn pexe la ñu am mooy sulli dossier Adji ñaari élection yoo xamante ni askanu Sénégal du mooyu nañ leen waa benn ñoom jàpp nañu ne maanaam seen arme bi gën a rëy mooy mbiri aj sara waaye nag na leen leer na mën naa dugal Sénégal ci du samay kàddu damay nettali ma ngi ci exclusif yéen kaay gi de la turbina nee na nag ñi nga xam ne ñuy waa coalition yeewi askan wi ñoom nag def nañu maa waxoon waxeet ndax ñoom ñoo ne woon cumul mandat bokkul ci seen mbir maanaam nekk maire nekk député loolee waa yeewi askan wi ñoom dañ ne woon kenn du ko def ci seen biir ji gis nañ ñoo xam ne ci biir coalition Yewwi Askan Wi ay maire lañ ay député lañ yéen kaay gi di 24 heures Cheikh Dieng bàyyi na PDS nee na ay jafe-jafe la am ak Karim Wade yéen kaay gi de la témoin nee na assemblée nationale coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal ñoo ngi def ay réunion waaye nag seeni pexe dañu ko nëbb yéen kaay gi di bés bi nee na yi nga xam ne ñoo bokk Pastef ñoom nag dañuy sàkk biram sulay Diop ñu nag daal di koy jiital mu nekk candidat ngir nag mën a jiite assemblée nationale Ahmed Aïdara candidat la Barthélémy Dias candidat la waaye tamit Lamine Thiam bu PDS moom tamit candidat la yéen a kaay gii di 24 heures am ñu koy fekk fa Mamadou Lamine Diallo bu tekki nee na nag Macky Sall jamono ji ma ngi jéem a ger député yi bokk ci Yewwi ak Wallu maanaam di leen proposé député bu nekk lu toll ci cent millions aw yéen a kaay gii de Le Quotidien nee na ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal ñoom nag suba dinañu amalaat beneen réunion ñoom li ñu bëgg mooy taxawal lu toll ci ñetti groupe parlementaire yéen kaay gi du source a nee na intercoalition Yewwi Wallu ngir nag jiital ab candidat ngir nag mu mën a xëccoo njiitul assemblée nationale mbir mi nag yombul si ñooma yéen kaay gi di réew mi quotidien ne na liggéeykat yi nga xam na ñoo nekk séenoo ñoom nag mer nañu ba maara day taal lii àjjuma sax ñoo ngi ci mbedd mi amal ñaari fan yoo xam ne dañu ko fas yéene gerawa yéen kaay gi di Les Échos Mamadou Lamine Kassé mi nga xam na nag ay jamono moo jiite woon SNHLM syndicat ba dañu ko porté woon plainte jàpp na nag jaaraliw ko bi ko war a jaarale loole nag moo tax procureur jamono ji li mu teg bët mooy détournement alalu askan wi loole nag moo tax procureur daal di sàkko ñu ubbi ab information judiciaire ci Mamadou Kassé mii nga xam ne jamono ji moo jiita si kaab yéen a kaay gi du l'observateur nee na lu jëm ci wàllum courant nee ma énergie ak yu si ajo soo muy tuulee dina yokkaat ci réew mi yéen a kaay gi de ñu koy fekk fa Guy Marius Sagna nee na Baba Diaw bu itok Baba Diaw bu itok dafa amee lu juróom-ñetti weer ay arriéré de salaire ay maanaam Baba Diaw bu Itoka am na lu toll si ñeen fukk ak juróom-ñeent ci employé am yoo xam ne Baba Diaw toog na lu toll si juróom-ñetti weer fayu leena employé yii nag yóbbu woon nañu ko ca cour d'appel bu Thiès cour d'appel bu Thiès woo Baba Diaw Itoka na ko ñii fay leen seen xaalis waaye ba léegi dafa lank ba tëdd sa naaj woo yéen kaay gi di sunu lamba xëy duñu xibaar naan ñu combat Gris doo Ama Baldé combat la